salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di jaar bu baax a baax a baax di leen euh, sargal ci feetu korité bi ñuy waaju dugg ni di ci baalu ax di ci baale tamit ax di sàkku itam yàlla mi nga xam ne moom moo ñu may ñu fekkee weer wii may ñu ñu fekkee ko ay weeri weer yu bëre bëre bëre bëri yàlla defal ñu tamit xéewal yu bari waaw dugal ci poos yi tamit xaalis tuuti <laughs> dina ci baax damay wax ne sax xaalis bu bëri xaalis bu bëree bëree bari waaw donc euh, ñun ñëpp soxla nañ ko puisque pourquoi pas yeneen réew yi di ko def di am ñun aussi luñ c'est possible war nañ ko mën def rien n'est impossible waaw tey nag euh, dama leen indil benn affaire bu nar a am ama ama ama ama am doole waaw tey vraiment euh, dama leen indil affaire bu nar a am doole waaw sincèrement euh, te dama ñaan yàlla aussi euh, yàlla dimbali ñu ba li nga xam ne ñu ngi ciy dugg mu nekk loo xam ne vraiment ñun ñëpp kenn du fi nekk naan su ma yëgoon waaw balaa ma ci dem dama leen di ñaan ngeen partage vidéo yi ngeen di commenter aussi bu leen bu leen kii bañal looleen am loo leen bëgg a laajte projet boo leen bëgg dugg même bu fekkee société bu bees la bu ngeen de doog a découvrir ngeen bëgg ñu liggéey ci mën nañ mën ngeen ñu ko envoyé dinañ ci def ay recherche ñu xool ko voilà euh, balaa may dem ci li ma leen di indil tey euh, dama leen di fàttali rek tuuti mone bi tax tey ñun ñëpp ñu mën a ñu mën a liggéey ci plateforme yi mooy bitcoin bu ngeen xoolee euh, deux mille dix deux mille neuf lañ lañ lañ ko njëkk a waxtaane gars yi waaw ki ki nga xam ne moo ko créé wala groupe de personne bi nga xam ne ñoom ñoo ko créé deux mille neuf lañ ko njëkk a waxtaane mais deux mille douze lañ ci commencé liggéey jamono yooyu matul woon cent franc fa wala ay côté yooyu lay doon benn bitcoin tey mat la mat na tey ay million presque demoon na ba jege quarante million franc fa kon jamono yooyu ku ñu ko doon wax ne la kaay dugg ci projet bi mën nga ko xeeb mën nga ne noo lii du projet dara mën nga ne imaginez-vous ah benn benn benn benn benn benn active numérique boo xam ne tey mu ngi jar fukki dërëm CFA nit ne la kay jënd ko fii ak at mën na jar junni boo ko jëndee tey fukki dërëm fii ak at su yàlla dogalee mu mat junni yow boo ko jaayee ñaata nga ciy gañee fukki dërëm boo jaay boo jënde woon loo jënde woon fukki dërëm boo ko jaayee junni ngay am boo ci yoroon fukk fukki junni lay doon boo ci yoroon junni ñaata lay doon donc am na ñu bëri ñoo xam ne loolu raw nañ ci bitcoin man am na ci lu bëri lu ma fekkee ci jamono yooyu mais c'était très difficile pour ñun africain yi pour ñu mën a jënd bitcoin technologie la woon boo xam ne maîtriser wuñ ko woon xamuñu woon amoon na sax ay yoo xam ne dañ ko doon may bitcoin nii gratuit da ngay ñëw toutes les trente minutes nga dugg ñu may la ay bitcoin loolu lépp ñun ñàkk farlu ci benn affaire tax na ba gis nga ko tey fan la bitcoin toll africain bu nekkoon fii tey ci suñu réew yi puisque benn bitcoin amul valeur yenn valeur ci ci ci yenn tubaab yi waaw puisque cinquante mille dollars wala soixante quinze mille dollars eggagul soixante mais egg na soixante mille dollars amul yenn valeur ci yenn tubaab yi mais imaginez bu mais cinquante mille dollars ñun ñaata million la si ñun donc da ngay gis fii koo xam ne mu ngi liggéey pendant des années mënul fexe ba dajale dara ah kon tey occasion la boo xam ne vraiment man bi ma ko gisee dama ne occasion bi du bàyyi mukk mu dem duma bàyyi mukk occasion bi dem te génnewuma ko pour indi ko ci chaîne bi jox leen ko expliquer leen li ma ci xam ñi nga xam ne bëgg nañ ci def ay recherche puisque vraiment c'est quelque chose boo xamante ne man euh, dugg naa ci te dama ci fas yéene dugg bu baax a baax te ma xam ne dërëm bu ma ci dugal tey déjà fii ak weer su ma ko jaayee du ma perte d'accord benn projet la boo xam ne nekkoon na fi ci lii nga xam ne moom moom la ñuy wax deux mille euh, nekkoon na fi deux mille dix huit la arrêté woon ñu doon ko wax Bitconnect Bit Bitconnect ma won leen ko. naka la meloon ci deux mille dix huit ak tey ñoom bi ñu ñëwaatee ñu commencé waat liggéey ak lan lañ ñu indil bii yoon bu fekkee ne ñun xam naa ne suñu réew yi bëriwul ñoo xam ne dinañu informé wu ci côté yooyu mais man xam naa ko dinaa ko partager ak yéen kenn ku nekk si yéen mu xool ndax jaral na ko puisque affaire bi tamit jeu rek yàlla mën na def suba mu jur lu am solo mais bu boobaa ki ci duggoon nangu cee dugal xaalisam moo ci gis boppam bu yàlla dogalee sottiwul aussi ñu xam ne loolu la yàlla dogal d'accord voilà léegi projet bi ma leen bëgg a présenter tey mu ngi nekk nii mu ngi tudd Ether Connect Ether Connect ñi nga xam ne yàgg nañ ci business euh, réseau en ligne xamoon nañu déggoon nañu Bit Connect BitConnect benn mone la woon boo xam ne 2017 euh, mu ngi fi woon ba 2018 cours bi moo nekkoon nii monnaie bi demoon na ba benn pièce bi di jar quatre cent et quelques dollars quatre cent vingt huit quatre cent quarante neuf dollars demoon na ba jar ko waaw maanaam benn pièce bi demoon na ba mën a jar quatre cent quarante neuf dollars alors que bi muy doog a commencé. benn pièce bi mu ngi doon jar zéro virgule nangam sangam la doon jar waaw zéro virgule dix sept dollars la doon jar commencé zéro virgule dix di yéeg di yéeg di yéeg di yéeg di yéeg ba monté ba toll fii demoon ba toll ci quatre cent quarante neuf dollars euh, mais jamono yooyu comme affaire bitcoin yeeg yooyu demewul woon noonu bëriwul woon ñu ci duggu état yi dañ ko doon xeex États-Unis génn ñoom tamit ñu génnee. Euh, ay article tëj société bii nga xam ne moo nekkoon bit BitConnect léegi nag gars yi dañu dellu siwaat créé waat beneen monnaie boo xam ne cette fois-ci ñu ngi ko tuddee EtherConnect moo nekk nii EtherConnect moom moo nekk nii lii seen PDF la su ngeen demee ci suufu vidéo yi tout toujours dinaa fa bàyyi sama lien de parenage ku bëgg mën nga dugg foofu nga inscrire en temps ku soxla PDF bi soo demee foofu dinga nga mën a dugg pour nga gis PDF bi programme bi yëpp ñu ngi ko def foofu voilà d'accord euh, bii nii en en en kii la en anglais la mais dinaa jéem a xool hmm, boo xamante ne puisque am na PDF yoo xam ne en français la dinaa ko jéem a xool comme ça ma tegal leen ko foofu ba képp koo xam ne. Euh, soxla nga ko nga mën a dem foofu xool ko bon lan moo waral ma ñëw pour présenter leen euh, société bi lan moo tax aussi may encourager ñu bëri pour ñu jëm si dugg lii lépp ay programme la yoo xam ne mois de juillet deux mille vingt et la ay kii yo août hmm, septembre yëpp ay euh, ci calendrier wu kii bi société bi la mais yëpp man amaluma njëriñ pour ma expliquer leen ko peut-être bu ngeen demee ci kii bi di ngeen ko gën a comprendre am na plan de euh, kii boo xamante ne euh, parrainage direct yi xaalis bi nga xamante ne euh, moom mooy seen capital actuellement li nga xamante ne noonu lay demee fii daal laa leen bëgg a pour ngeen comprendre puisque li ëpp solo moom mooy ñun suñu réew yi man su ma gisee genre projet yi dama koy yàkkamte pour wax ko nit ñi en tout cas li am ba am mooy cinquante dollars la commencé ba mille dollars mille un cinquante dollars ba mille dollars yaa ngi am dix pour cent ngay gañe par mois d' accord mille un ba cinq mille dollars yaa ngi gagné pour cent cinq mille un ba dix mille dollars yaa ngi gagné pour cent dix mille un ba cent mille yaa ngi gagné. 17 pour cent 17 virgule 5 pour cent donc di ngeen ma wax ne ba léegi comprendre gu leen sama gars yi topp leen vidéo bi ba mu jeex puisque lii projet bi bu yàlla dogalee mu sotti bu yàlla dogalee mu sotti laa la wax ak cinquante dollars bii kese nit mën na ko fi investir gagné fi ay millions te dinaa leen ko leeralal ba mu leer nañ pour ngeen mën ko comprendre bu baax ñi nga xam ne marketing de réseau la ñuy def bu leen neexee ñu dugg ci dix niveau la niveau un yaa ngi am huit pour cent niveau deux yaa ngi am trois pour cent niveau trois yaa ngi am deux pour cent niveau quatre un pour cent yi ci des mu ngi noonu waaw donc euh, vraiment projet la boo xamante ne tey gaa yu bëri ñu ngi koy waxtaanee. Euh, man daal munu mu munu munuma sax wax ndax projet bi vraiment dama ñaan yàlla ke yàlla dimbali ñu ba mu ba mu yegg ak jàmm te li tax ma bu fekkoon ne projet la boo xamante ne mosul woon am kon peut-être du am du kiyee noonu ne lii 2017 la woon yàggul dara seen cours bi moo demee nii pour ma expliquer leen nag graphisme bi moom laa leen tegal pour ngeen mën a comprendre projet bi mu ngi doog ubbi mu ngi toll fii nga jënd ko fii hmm? maanaam nga dugal fi cinquante dollars nga am équivalent su euh, deux cent et quelque ECC euh, e seen coin bi noonu la tudd une fois coin bi yéeg ba tollu fii mën nga ko jaay te gis nga sama gaay yéen ñi nga xam ne da ngeen di dugg ci biir internet di xool bàyyi leen xel bu baax a baax ne réew yi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiitu ci marketing de réseau yi wala ay bitcoin ak genre yi la plupart li ñuy gañe ci lii ci xaalis melul ni comme nga dugg lu mel ni Impero Petrompay Wazir nangam nangam nangam c'est pas la nekkul benn dimension fii da ngay investir lu ndaw nga garder ko gere ko pendant cinq mois six mois mu nekk ay million damay dugg sama back office ma expliquer leen pour ngeen mën a comprendre fii man cinquante deux dollars laa fi dugalagul virgule zéro sept cinquante deux dollars yi disons léegi man dama dugal cinquante deux dollars yi ma bàyyi ko fi pendant un an. pandant un an cinquante deux dollars motul sax trente cinq mille wala côté yooyu la motul bon nañ nañ def léegi cinquante mille franc CFA alors cinquante mille nañ ne cinquante deux dollars yi jël leen dollar bu nekk cinquante deux bi benn bu nekk cinq mille franc la muy soixante mille franc d'accord léegi su ma ko dugalee ñoom dañu koy société bi daf koy garder pendant douze mois duma ko delloo. douze mois la kay garde cinquante deux dollars yi mu ngi nekk ci ECC seen coin bi mu ngi nekk deux cent cinquante sept coin pièce fii cinquante deux dollars la puisque benn pièce bi man ba may dugg mu ngi nekkoon zéro virgule zéro vingt euh, kii loolu la doon jar zéro virgule zéro vingt centime loolu la doon jar tey 66 centimes yokku na ci te man tey mooy sama deuxième jour ci société bi d'accord tey mooy sama deuxième jour ci société bi donc man sama 52 dollars yi kese su ma ko jaayoon tey lu mu néew néew bu nekkee 5 dollars wala 10 dollars dina si yokku mais idée bi du loolu idée bi du loolu da ngeen di calculer cinquante euh, deux cent cinquante sept coins yi pièces yi ngeen imaginer su eggee ci nañ wax léegi deux cent dollars nañ egg rek ci benn pièce jar deux cent dollars allez ñu calculer ko ñu calculer ko ñu xool nañu wax ne léegi benn pièce rek egg ci deux cent dollars nga jël deux cent nga multiplier ko par deux cent cinquante sept mu jox la ñaata cinq mille cinquante et un euh, lii ñaata la sax <laughs> euh, cinquante et un mille quatre cent cinquante et un mille quatre cent dollars cinquante et un mille quatre cent dollars te lii waxuma ne ñoom seen prévision mooy coin seen coin bi d'ici deux mille vingt deux seen benn pièce bu nekk bëgg nañu mu egg cinq cent dollars déjà yow nga yor ci deux cent cinquante sept dollars nga multiplier ko waxuma la ñoom fi ñu wax de nga def ko rek yow benn pièce bu nekk mu egg deux cent dollars bu mu yegg sax cinq cent mais na yegg deux cent dollars yow yaa ngi génnee cinquante dollars nga gagné cinquante et mille quatre cent dollars léegi cinquante et mille quatre cent dollars pour ñi nga xam ne xamuñu CFA. xamuñu xamuñu dollar bi lu muy kii lu muy tekki léegi man damay jël rek cinq cent du ma jël sax cinq cent bu tegal cinq cent rek laay jël ma ko par cinquante et mille quatre cent ma xool loolu ñaata lay doon ci CFA vingt cinq million sept cent mille vingt cinq millions sept kon gis ngeen puissance bi nga xam ne moom moo nekk ci outil yi tubaab yi di liggéeyee mënoon naa ko xam ñaanuma yàlla sax xam xéewal gu mel ni garder ko bañ ko wax nit xam ne cinquante dollars même boo ko ci dugalee nga perte wàññiwu la dara terewu la dem nga créer benn compte génnee benn trente quatre mille francs nga sànni ko foofu pendant un an même bu nekkee ne un million la rek sawaay ñun fii ku ci am liggéey boo xam ne da ngay génnee cinquante mille dugal ko foofu pendant un an mu nekk un million dangay doo bërëq waxuma la nag yàlla dimbali la mu egg rek vingt deux deux cent dollars allez diviser ko par deux nañu diviser lii ñu diviser ko par deux diviser ko par deux mu nekk ñaata dix millions non mais quand sama gars yi Euh, su ngeen xoolee déggee ni may waxee ngeen comprendre xam ne vraiment euh, man lii euh, vraiment dama am yéene sénégalais yi dugg ci même bu nekkee benn sénégalais ñaari sénégalais moo ci réussir baax na même bu nekkul ne man la sax keneen ku mu mënti ki doon man cinquante deux dollars laa si dugal pour l'instant puisque dama doon essayer rek ndax nan laay mën a dugalee xaalis bi foofu ma jël ko dugal cinquante deux dollars te dinaa leen wax fii fekk gisuma benn problème ci projet bi mille dollars dinaa ko fi dugal bàyyi ko foofu 1000 dollars yi bi ñu cal bi ñu calculer man ak suñ suñu team bi bi ñu toogee ñu calculer ko boo ko calculer bu demee ba mu mat 500 dollars pièce bi mën a jar 500 dollars boo ko jaayee 2 million de dollars 2 millions 500 millions de dollars la 2 millions 500 millions de dollars c'est une affaire de ouf kon gars yi tey lii laa leen bëggoon indil vraiment euh, lii amul lenn loo xam ne lu ci illégal la. wala lu nit di xalaat nekkul chaque jour da ngay dugal sa xaalis di di di di di upgrade en plus dafa am la chaque jour dañ lay fay say gain day ñëw quotidiennement par jour su la su la neexee doo bàyyi man bërki démb bërki démb si guddi laa ci dugg dem ma ma dugal sama xaalis tey lii nga zéro virgule quatre-vingt-trois yi su ma neexee léegi léegi ma retirer ko waaw jaay ko mais amuluma njëriñ puisque si prix bi laa koy jaayee waaw si prix bi laa koy jaay au moins fii bu motoon deux un dollar bu motee rek un dollar ngeen calculer zéro virgule kii su boobaa su ma ko jaayee ñaata lay doon ci xaalis terewul nga def continuer sa impéro terewul nga continuer sa Petrompay ah terewul nga continuer sa Wazir ah terewul nga continuer sa Big So Trade ah d'accord mais lu ma leen di ñaan encore une fois te lii dama koy ñaan bépp sénégalais boo xam ne seetaan nga vidéo bi nga partagé ko ak kenn beneen sénégalais partagé leen video bi sincèrement dama leen ko ñaan te yàlla rek tax ñi nga xam ne seetaan nañ vidéo bi partagé leen ko ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen vraiment ngeen partagé ko ak sénégalais yi ñu seetaan ko puisque lii sincèrement parler dama koy wax te yàlla rek moo tax ma di ko wax projet bi ku ci dugal benn trente mille benn benn benn quarante mille yàqalu la dara terewu la liggéey terewu la dara su gañee ëllëg yow yaa ci gañee te lii man jàpp naa ne nit mënu ci perte lu tax ndax tey man bi ma ko jëndee démb ak tey kii bi mu ngi continuer di grimper si toutefois ma dem ba suba affaire yi demee noonu mën naa ko jaay ma récupérer sama xaalis te trente mille quarante mille sincèrement du dara hmm? ci benn kii boo xam ne actif numérique boo xam ne mën nga ko jënd tey mu jar dërëm ëllëg mu jar téeméer donc euh, lii laa leen indiloon tey vraiment di encourager ñëpp ñu dem bindu ci dinaa fa bàyyi sama lien d'affiliation képp koo xam ne neex na la nga dem bindoo foofu bu la neexee aussi nga dugg ci internet nga xool ce qui l'essentiel mooy ñun sénégalais yi. Euh, ñu profitoo ci occasion bi xool ko bu baax a baax a baax a baax ah su amee njëriñ ñun ñëpp a ciy jëriñu waaw jëndee dërëm jaayee junni ci genre projet yi rek la ko nit mën a amee tey lii laa leen indiloon te vraiment maa ngi ñaan ngeen partager vidéo bi à max vraiment kon ñu def noonu ba beneen yoon jaa ngeen jëf